kenn ci xulafaa ur rashidun muy xalifam ñeenteel di ali abi taalibin radiallahu anhu nekk kenn ci ñi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal na leen ci aljanna mu doon koo xam ne nag am na jagle goo xam ne moom rekk moo ko am ndax jege gi mu jege yonent bi sallallahu alayhi wa nekk doomi baayam bàyyam ak bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo bokk lépp mu yaawoo itam ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bàyyam amoo taalib mi nga xam ne moo yoroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw fi maamam Abdul Muttalib jógee dafa jabootoon lool te néew am am lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak Abbas mi nga xam ne moom itam bàyyi taxam la ne ko daal nan dem waxtaan ak Abu Taalib kenn ku nekk am ku jël ci njabootam gi féetewoo ko ndax ñu wàññil ko diisaay bi nekk ci kawam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di Abi Taalib yóbbu ko këram yar ko foofa lu jiitu muy nekk ab yonent Ali yu taxoog moom lool jànge ci moom ak dëggu jànge ci moom ak wóor jànge ci moom ak tedd ak rafet jikko xadijatu umul muminin radiallahu anha yar ko ci biir kër gi moo tax bi suñu borom tabaraka taala yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk ab yonent te booba àll yu fukki at rek la amagul waaye moom moo njëkk a gëm ci ndaw ñi ci loo xam amu ca benn deng-deng ànd caakum njàmbaar ndax xam ne la ko ci nar a fekk ndax képp koo xam ne gëm nga lu wuuteeg li nga xam ne ci la nit ñi nekk ci la wayjur yi nekk loola des na la mbugal des na la fekk coono moo tax itam daje naag li muy doon doon ndaw teewul daje naag ay lor yu metti ni nga xam ne noonu la ko mbooleem ñi gëm yàlla doon dajeeg lor jooju saxaaba bu mag boobu di ali ibn abi talib radiallahu anhu am na ay taxawaay yoo xam ne yépp ak njàmbaar bu yéeme la ca wane njàmbaaram googu nga xam ne lépp daf ko def ci luy dëgëral diine ji foo xam ne jullit ñu mas nañ faa am ndam ab taxawaayam fis na ca lool ci mbooleem xare yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na ko xare mësta léewtoo kenn ñu def koor jàkkaarlo ak moom lu dul ne gaañ gaañe na ko daaneel na moom Aliou Ndiaye Abiy Talib fekkee na mboolem xare yi yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam xare lu dul xaswatu tabuk xaswatu tabuk yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam moo ko bàyyi woon ci dëkk bi mu wóotu ko fi bokk na ci melokaan yi njàmbaaram googu bi yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam di gàddaay jóge makka di dem madina mom la bayyi mu wuutu ko fanan ci néegam te boba néegam yéefar yang ko wër ne bu gudde rek ñu fekk ko fa ray ko waye àll yu la batale mu wuutu ko fa ngir bu xëyee mën delon delloon yi ñu doon denk yonante bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee mu dab ci ko madina noonu la ko àll yu defee te ba muy gàddaay di dem madina sax dafa dox ak tànkam amul lu mu war te booba ay atam lu néew la ay ñaar fukki at ak ñett rek lay war a tolloon bokk na ci melokaani jàmbaaram googu bi nga xamee ne al ahzab muy yéefar yi dañoo takk too def benn kuréel ñëw wër madinatul munawwara te yonente bi sallallahu alayhi wa digle ñu gas alxandaq loolu la ñuy tuddee xaswatul ahzab bi ñu leen wëree gaw am kenn ku génn ci yéefar yi di koo xam ne xeexkat bu mag la te itam ku jëm ja rëy la ñu koy wax Amr ibn Abd Wudd nga xam ne ñu bari dañ koo ragal mu génn daal di ne ku ñeme ci yéen na ñëw léewtoog man songoog man ñu def corps à corps Ali ibn Abi Talib booba ay atam néew na lool waaye mu daal ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam man may dajeeg moom bi ko Amr moomu gisee ne ko yow day ñu la mag foofu ñu ngi ci biir mbooloo mi te man bëgguma ray ku mel yow ali ibn abi talib ne ko bo bëgguma ray tam man de bëgg na la ray man bëgg na tout sa deret bi ko waxé loolu mu daldi mer daldi bocci bocc jaaseem daal songo ak ali biñu songo songoo melax pënd bi daldi di ne tasaro, ken seenatu len leen bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala defal ndam ali waaye bu pënd ba wuree rek ñu gis yu mu taxaw ci dënn waa jooju yéefar boobu mu daanu ba mu taxaw ci dënn bi dagg bopp bi deret ji di toq yonente bi salaa sallam ne allahu akbar julit ñëpp ne allahu akbar nga xam ne loolu bokk na ci li tiitloo yéefar yi ba ñu mujj delluwaat ñibbi jotuñoo xeex bokk na ci melokaani njàmbaaram radiallahu anhu ci xaybar bi nga xamee ne yahoor yi làqu nañu ci seen biir tata yi julit ñi wër leen ab diir mënu mënuñoo egg ci ñoom yonente bi sallallahu alayhi wasallam benn bis mu ne ëllëg danaa jox drapeau bi drapeau bi ne kuñ ko jox yaay jiite xeex bi danaa ko jox benn waay boo xam ne yàlla dana ubbi mbir mi ci loxoom ndax kooka day ku bëgg yàlla ko yonentam la waaye itam koo xam ne yàlla ko yonentam bëgg nañ ko sahaba yépp fanaan kenn ku nekk dimbe mébét mu doon yow kenn ku nekk di yaakaar mu doon yow bi ñu xëyee ñu teel a ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi kenn ku nekk di yaakaar ne yow la yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wax yonente bi ne ayna ali ana aliyu ñu ne ko aliyu day dafa feebar ay bëtam day metti dafa wànneen wànneen wu méttee méttee métti yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne andi leen ko mu ñëw yonente bi tofli ci bët yi mu dal di wér mel ne dara mosu koo dal mu dal di koy jox drapeau bi aliyu ne dinaa ak ñoom ba ñu nekk ci li nekk bañu melni non ne nun bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal te def ndank ba nga wacc ci seenu ëtt waaye soo demee bul xeexagul na nga leen woo ci lislaam na nga leen wax li war ci ñoom li suñu borom waral ci ñoom ne ko maa ngi giñ ci yàlla ne suñu borom tabaraka wa taala jubal nit jaarale ko ci yow moo gën ci yow mbooleem alal ju ñuy naw ci àdduna foofu la ko ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxewoon ali ibn abi talib noonu mu ràññi ko woon ci ak njàmbaar noonu la ràññi ko woon itam ci xam-xam noonu la ràññee ko woon itam ci woote ci lislaam ci atum fukkeel ci gàddaay gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ab lim ci saxaaba yi ñu dem ci dëkk yi ak ci giir yi fekk nit ñi fa ñu nekk di leen woo ci lislaam Ali ibn Abi Talib mi ngi ko yabaloon fi ñuy wax Abadan ci féeteeg Yaman bind ab téere jox ko bo xamne bu demee mom lay jang mom la len di jotali wota bi yonente sallallahu alaihi wa sallam bi aliyu demee woo leen ci l'islam woy bu ànd dal bu ànd akuk ba jant ba daataan so ñoy ñepp dañu tuub dugg ci al yu bég lol dal di bind am lettre yónnee ko yonente bi salallahu alayhi wa sallam di ko li xew ak nit ñi ni ñu duggee ci l'islam yonente bi biñ ko jangale lettre yu bobu dafa dal sujud di sant suñu borom tabaraka wa taala ali ku dëddu woon àdduna la ku ragaloon yàlla la ku néew woon am am la waaye ku doylu woon la daana wax ne alaaxira day jóg na di ñëw adduna nag moom jóg na di dem bokk leen ci doomi alaaxira te bañ a bokk ci doomi adduna mu ne tey dey fii ñu ne ci àdduna jëf rek la waaye amagul rek la ëllëg nag yowmal xiyaam rek la la waaye amul jëf kon fi ñu nek da ngay jëf rek kenn du la rek leegul waye ëlëk yowmal xiyam nak rek la rek la jëf abatu fa bi nga xamé né Ousmane ibn Affan shahid na té jullit ñi ak mom ngir mu nek khalifatul muslimin dafa taxaw ci biir mbolo mi dal di khutba bokku na ci lam leen wax ni leen man day kenn la ci yeen lima am ci ak moy li ngeen am li leen warit mooy li war na ngeen xam ne nag fitna ubbiku na ci biir jullit ñi ndax bi ñu reyee Ousmane rek ci la jullit ñi nag tàmbalee xàggari ko fitna daal di juddu mu ne leen fitna jii xew nag kenn mënu ko dékku lu muy koo xam ne kuy muñ la koo xam ne ku am xam-xam la koo xam ne li muy def lu nekk day xam fi mu koy teg kooku rek moo mën a génn ci fitna jii daal ne man de danaa leen jéem a jaarale ci yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon li ñu ma digal ma war koo def ci yéen dinaa ko def li féeg yéen ma koy nangul suñu borom nag lay dimbandikoo dal suñu borom tabaraka wa day xam na moom mi nekk ci kaw asamaanam bi nekk ci arasam xam na ne man dey lii ngeen ma jox muy ak jiital ma ku ko bañoon la waaye nag bi seen xalaat demee ba daje ci man awma ci pexe ndax déggoon naa yonente bi sallallahu alayhi mu ne képp koo xam ne fal nañ la wala jital nañ la denk la dara ci mbirum julit ni sama gannaaw neena bu allegé yow mal xiyaam sirat dañ lay taxawlo ci peggu sirat neena malaaka yi tasare sa téré yi la doon bindal ñu diko ko neena su fekke ak maanu rek lañ ca gis da nga mucc ci sa maanu ko waye buñ ca gisé genn nëggte buñ ca gisé genn togn neena sirat day wañiku fi nga taxaw muy wañiku di wañiku di wañiku ba jextak nga sarax ci biir nee na nee na boobaa nag la ngay njëkk a dajeeg safara bi ne mooy sa xar kanam mu nekk waaye bi seen xalaat yépp dajee ci man mën ma leen a bàyyi noonu kon nga xam ne kon moom wutu ko woon te biñ ko ko joxee itam jàppewu ko nguur waaye njiit la ko jàppe koo xam ne li war ñëpp moo ko war li ñëpp am itam loolu la am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamaloon ne ko ne da nekk shahid dañu lay rey ci lislaam moo tax bi nga xamee ne bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jógee ba mu nekk xalifa dafa jóge Madina dem Kufa ca Iraq foofa la mu joon nekk booba nag jullit ñi séddalikoo ne ñaari xaaj ndax xam ngeen ne bi fi Usmaan ibn Affan jógee Muawiya ibn Abi Sufyaan ca Sham moom itam dafa déclaré ne moom it ab xalifa la jullit ñi am ñaari xalifa ndax dafa ne daal Aliyu bu fee mbugalul ñi rey Usmaan jàpp leen ba mbugal leen man du ma jaayante ak moom Aliou itam ne ko boo jaayee jaayantuwut ak man ba lépp nekk ci sama loxo du mën a jàpp ñooñu mu daal di nekk nag ñaari conflit kenn ku nekk am fu mu far am nag ñu génn ñu ñuy tudde ay xawaarij ñoo xam ne ànduñu ak Aliyu ànduñu ak Muawiya ñoom nee nañ ñaari ñëpp kenn nekku ci ak njub ñoom ñëpp lañu bëgg a rey ñooñu nag ñoo tëral benn plan génn guddi goo xam ne dañoo yebal ñaar kii war a dem rey Muawiya kii war a dem rey Aliyu kii waroon a dem rey Aliyu moom lañ tudde Ibnu Muljim daa ñëw ci guddi ci jàkka ji tëdd fa Aliou daan teel a jóg mooy yee nit ñi bi ñëwee ci jàkka ji fekk ko mu tëdd yi di ko yee di ko jógal mu daal di jóg Aliou daal di defar sàppe yi daal di kàbbar ndeke booba mi ngi gegenoo jaasi bi ndeke Aliou kàbbar rek mu daal di ñëw dóor ko jaasi ji ci ker su ko defee Aliou daal di daanu ñu daal di koy jël daal koy yóbbu këram diir bu néew rek mu daal di ka nga xam ne moo doon rey Muawiya moom moo it blessé na ko waaye jotut a faatu dóor na ko waaye dóor ba reyu ko Muawiya moom daa wér moo tax moom moo continué nekk xalifa kon fitna jooju yépp mi ngi tàmbalee ci bi ñu reyee Ousmane ibnu Affan radiyallahu anhu kon Ali ibnu Abi Talib mu ngoog doon koo xam ne royukaay la ci ndaw ñi booba ay atam néew na lool bi muy dugg ci lislaam waaye nekkatal islaam moom doon ndaw du tee nga jël ci sa taxawaay bi nga ci war a taxaw moom mës a jaar ci dund ak ceddo ndax yonente bi sallallahu alayhi moo ko yaroon jiitu muy nekk ab yonent te yonente bi jiitu muy nekk ab yonent jikko yu baax yépp dafa nekkoon ci moom loolu nag Ali ibn Abi Talib ko ci moom moo tax moom la dencaloon doomam Fatima moom la ko yonente bi sallallahu alayhi joxoon moo tax moo jur Hasan ak Husayn yi nga xam ne eh, ci la sëti yonente bi sallallahu alayhi wasallam yépp soqi ko kon ab dundam royukaay la ni ko dund saxaaba yépp nekk nga gis na kon ñent ñi sekkon yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuy jité ku nek soxla nga ñent ñu melni ku melni abu bakrin anhu ca xelma ma ak dalga ak tey koku dang ko soxla ngir mu nek ko xamne ne koy diisul la waye ko morum ne umar ibn khattab ca dëgër ga ci mën wax deug bu ca set kenn ku ko jégué ak ku ko sori ci yam kooku itam kuy jité dang ko soxla ndax dana am loo mënta wax am ko lako waxal ci ak deug waaye itam ku mel ne Usmaan ibnu Affaan ci am am ba alal ja ak nam ko nangoo defee ci lislaam ndax it àdduna fii alal moo fi moo koy doxal lu ci bari am ko mel noonu ci sawet wet itam baax na waaye am koo xam ne itam ku mën a jàkkaarloog noonu yi ci wàllu xeex ku mel Ali ibnu Abi Talib ba nga xam ne kenn du la yëpp xam nañ ne xeexkat bu mag mi ci sawet wet ku mel ni itam ku ko am ci sa wet saw doxalin dana mën a jub moo tax ñeent ñii suñu borom tabaraka wa taala moo ko tànnal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ci wetam ba mu jot li lim doon jot li ba mu yegg kon nag gannaaw benn ajuma rek moo des suñu diggante koor gi dañuy taxawal fii xutba yi doon def ci saxaaba yi euh, ba koor gi jàll ak jàmm insha allah ñu eggale juróom benn yi ci des ci fukk yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf leen bégal ci aljanna ñuy fukk ñeent ñi mooy ñii abubakar omar ousmane ali ibn abi talib ridwanullahi alayhim bu ñu ko yàlla jàppandalee ñu eggale ko ci yeneen xutba waaye comme koor ñëw na moom la aju ci koor ak i atteem loola muy ñëw ci xutba yi ci des yàlla nu yàlla fekkeloo koor gi te jàpp jàppandala nu ban man ko woor koor bu dëppoog ni ko suñu borom diglee te suñu borom nangul nu ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain